mbokk asalaamaaleykum ñu ngi dellusiwaat ak yéen seen télévision nationale jot nañ xibaar ne taatanal ci subaak léegi ci bopp xibaar yi suñu mbokki chrétien yi doon màggal alxames ji tey ji yéegu yeesu Krista ñeent fukki fan ginnaaw Pâques muy mandargal njeexteelub liggéeyu yeesu Krista ci kaw suuf di mandargal tamit li jëm ci wàllub jamonoy église ñu jàpp rek ne démb la woon guddi gu sell gi di laylatul xadri jullit yàlla yëpp doon ko màggal dinañ ci dellusiwaat ci anam yi mu gën a covid foofu tolluwaay bi tamit dañ ci dellusiwaat ak nga xam ne moo yor kàddu dalu jooni gu ñu dénk lépp lu aaju wu ci wàllub wér gu yaram ci li nga xamante ne rek uh, moom la ñu am tey uh, ci cas uh, yu positif mbokk ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci taamu bi ngeen taamu seen télévision nationale RTS ngi di fi topp xibaar njël benn xibaar suñu mbokk chrétien yi tey ji leen doon màggal yéegu yeesu Christa ñeen fukki fan euh, ginnaaw Pâques muy nag euh, lu jëm ci li jeexal euh, liggéeyu yeesu Christa ci kaw suuf waaye tamit di mandargal jamonoy jàngu bi ñu koy màggal ñu ko doon màggal nag ci jamonoy pandémie bu coronavirus màggal yi daal di wuute loolu Anne Marie at wu nekk ak la cay xew bu ñu sukkandikoo ci atum 2019 eh, ci fàttali eh, communauté catholique bi doon xumbal eh, yëkkatiku Yeesu Krista ci ay église wala jàngu yu fees dell ren ji ci atum 2020 mu wute lool bërëb yooyoole wéet nañu ndaxte li nga xamante ne mooy jàngoro ji di Covid mu ngay wëy di law looloo tax évêque yu Sénégal yi. jaaxle ci feebar boobu le ak na muy lawee ba tax na ñu tëj bërëb yooyu le waaye nag ubbi leen yeneen bërëb yu nga xamante ne mën nañu fa ñaan jàngu mosquée wala synagogue du rek ñaanukaay doomu aadama bu nekk ndegeem nitaalu yàlla nga ñaanukaay nga man nga ñaan yàlla ci sa biir xol mën nga ñaan yàlla itam ci sa morom ñu bañ a fàtte ne itam ne njaboot bu nekk ñaanukaay nga ndaxte yeesu moo doon wax ne fu ñaar ak ñett tase ci tuur yàlla yàlla mu ngi seen diggante bu koy tekki yëkkati kooku Yeesu Krista di ascension am na nu ñu koy firndelee. ñeent fukki fan gannaaw dékalikoom Krista doomu yàlla yéeg na ci asamaan toog ca ndeyjooru baay bi xewte bu mag boobu am na lu bari li muy firnde li muy njëkk a firnde moo di ñun ñëpp dañoo ganise fii ci àdduna kenn dëkku fi loolo tax itam ndax ñu topp doomu yàlla toog ci wetam ci aljana li ñu war moo di ñu topp tànkam tànku coono tànku selaay ak tànku suufeedu ci jamono jile ñi nga xamante ne ñoo njiitu jàngu bi ñu ngi ñaan bépp kercen mu sikkundiku wala sax xool li nga xamante ne moo di yëkkatik Yeesu Krista ngir jëfee ko saa su nekk taxaw bu baax a baax ci li nga xamante ne mooy waare l'évangile bi def seeni bopp ni ki Yeesu Krista di yëkkati seen bopp saa su nekk ci bépp jafe-jafe wu àdduna te it di taxaw baax a baax ci li nga xamante ne moo di waare l'évangile bi ci fépp fu ñu mënti nekk ci àdduna si. am na solo Anne-Marie euh, Gomes euh, jullitu yàlla yi ñoom nag euh, démb lañ doon nag màggal guddi gu sell gii di laylatul xadri ban bés lañu ko war a màggal ak naka lañu ñu war a màggale guddi gu sell googu ak it yan ngëneel la ci jullitu yàlla yi di mën a xaar ñu ànd si ak François Seck ci ay tontu. inna anzalnaahu fi laylatil qadr guddi gu am solo la ci taarixu diine lislaam ñu koy woowe guddi bi gën ci guddi yi ñuy faral di ko màggal ci bis yu mujj ci weeru koor gi dafa nekk guddi goo xam ne guddi gu barkeel la di guddi gu am solo guddi gu màgg lool n'est-ce di guddi goo xam ni euh, jullit bu nekk war nga taxaw màggal ko ndax dañuy wax nu ni yool bi nekk ci guddi googu ku mu raw rek yool bu mag raw na la nee na noonu mi ngi nekk ci euh, dix derniers jours yi ñenn ñu ne ci dix derniers jours ci jour impair yi Euh, d' ailleurs moo tax ngay gis ñu bëre sax di ko célébrer nuit du 26 au 27 même le prophète nee na ci benn hadis ku koy lambaatu pour nga daj laylatul qadr lamb ko ci vingt nuit vingt 26 au 27. bu ñu sukkandiku ci alquran ci guddi laylatul qadr la borom bi wàccee téere bu sell boobu jaarale ko ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam am na sax benn surat boo xam ne dañ ko jagleel guddi gi. إنا أنزلناه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مل الفجر دونك saar boobu moom renu jagle leylatul qadr mu ni alquran donc wàcc ci guddi leylatul qadr ci guddi laylatul xadr dañ ci war a jaamu yàlla julli jàng alquran ni ko yonante bi daan digle da ngay def xiyaamu layli mooy naafila naafila yooyu nag amul amul ab yaay xool sa kattan fu mu la may rek ku nekk itam la nga mën rek nga def ko mais aussi bokk na ci ci ñaan yi aussi li yaay Aïcha ba mu laajee yonent bi mu ni ko bu ma xamee guddi Laylatul Qadri kañ la lan laa cay wax daf ko waxoon waxal allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yàlla yow yaay boroom jéggal kon yàlla nga nu jéggal incha allah bokk na ci aussi nga saraxe tamit ku mën tam nga saraxe ndax sarax moom bi gën mi ngi ci biir weeru koor rawat na ci guddi leelu xadr bokk na ci aussi jàng alquran wax dëgg yàlla muy guddi gu mag guddi gu barkeel boo xam ni jullit ñëpp war nañ ci ànd ñaan yàlla yàlla defal nu tawfiq defal nu jàmm ci réew mi dàqal nu coronavirus bi génne ko ci Sénégal génne ko ci àdduna bi partout ba ku nekk mën a dellu sa activité incha allah boroom xam-xam yi dañuy faral di wax ni ku jaamu yàlla ci guddi laylatul xadr mel na ni jaamu nga yàlla ci diiru junni weer laylatul qadri xayrun min alfi shahr mu yemoo ci lu ëpp juróom fukki at ak ñett muy diir bu yàgg ci dundu loolu lépp di firndeel solos guddi gi ak ngëneel yi ci nekk muy màndargal tamit xéwal yërmande ak màggaayu suñu borom

juróom benn yi di ay cas communautaire benn ci Mariste benn ci Castor benn ci Cité Keur Damel benn ci Plateau benn ci Guédiawaye ak benn ci tuuba juróom benn fukk ak juróom ci ñi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey Fukak ak malat nyunggi ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñeneen ñi des hôpital ñu ngi tane ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk bi Sénégal am woñi nañu ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer ak fukk ak ñaari junni ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak benn wër nañ si fanweer ñàkk si seen bakken mu des si suñu hôpitaux yi junni ak juróomi téeméer ak fanweer ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu sàmmoonteeg digle yi nga xam ne moom la ñu jàpp rek ne jot nañ fe ab xibaar léegi léegi ne ñaari nit faatu nañu ci feebar boobu kenn ki euh, fan juróom-benn fukki at ak benn la am mi ngi làqu euh, léegi ni yàggul ca hôpital bu Fann ab góoru yàlla la keneen ki tamit góor la mi am juróom-benn fukki at ak euh, juróom-ñett moom it léegi la làqu ci hôpital Aristide la Dantec ñu jàpp ne léegi nag suñu réew am na fanweeri nit ak ñaar yu làqu ci feebaru coronavirus waa dala yoon bu ñu dénk wàllu wér gu yaram ak réew mi yëpp ñoo ngi koy jàll seen i mbokk ñu jàpp rek ni ci wéyal ndigleel président de la république dara jow bu ñu dénk wàll affaires étrangères ñoo ngi wéyal di indi euh, sénégalais yi nga xam ne ngi nekk ca France Eh, ñoom nag eh, ñu ngi si ànd ak waa dalu jëwriñ gi ñu dénk wàllu wér gu yaram ak dalu jëwriñ gi ñu dénk wàllu kaaraange biir réew ak waa wàllu tourisme ak i dem bi jikk bi ci jaww ji eh, ci biir loolu rek ñu jàpp ni tey jii ñaar fukk fa ak benn ci weeru mai compagnie Air Sénégal dina indi ci lu toll ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeenti sénégalais yoo nga xam ñu ngi nekkoon ca France loolu nag waa réew mi yëpp ñoo ngi ciy gërëm njiitu waa France ci ndimbal gi nga xamante ni rek ñu ngi ñu koy jàppale ngir nag ñi nekk ci bitim réew mën a dellu dellu si si loolu dara jëriñu ñu nekk wàllu affaire étrangère ñoom nag nee dañ def seen kéem kàttan ba bépp sénégalais bi nga xamante ni rek mu nga bitim réew nga mën a ñibbisi ci euh, réew mi. taxawu ñi nga xamante ni dañu am feebaru Covid 19 nekk ci réanimation ci euh, euh, rawatina hôpital principal ñu ay cas nekk na lu nga xamante ne dëgg la métti na ndax nag ci dañu sonn. waaye nekk réanimation euh, taxul nga bañ a wér nga nekk réanimation waaye tamit mën nga wér ba génn ba ñibbi sa kër euh, suñu suñu médecin nag ñu ngi def seen kem kantan ba ñi nga xam ñu ngi nekk ci réanimation ñu fexe ba euh, daal ñu taxawu leen wallu leen ba ñu mën a wér ci biir réanimation yi boobu sax la ñuy dem Omar Diaw ànd na ak ki nga xam ne mooy professeur Wade mu indi ñu ci ay leeral

ku jeexal la ba noppi. bu ñuy liggéey normalement sans Covid bi téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom-benn à peu près ñoo si génn àdduna su ñu ba léegi ñu gis mooy téeméer boo jël après ñaar fukk ñoo si génn àdduna donc ñuy gën àdduna si Covid bi moo gën a néew que li ñu am bu Covid bi amul. loolu tax na ba fajkat yi nekk di bëre ak feebar bi ngir fexe ni si malade bi génnee teel si taxaw nag moo si gën naka si lépp lu jëm ci faju bu dañoo teel a gis si ñi suba dañ si génn mais am na foo xam fu yegg ñu faj la nga ñàkk ñàkk la faj mooy yem dafay am benn situation de non retour. professeur Wade di agrégé bu Val de Grâce ca France di xamle ne yi ñuy topp am na si ñoo xam ne yàggatul ñu war leen génne. am na ñu si sonn trop mais am ñoo xam ni boo gisee ñu ngi commencé améliorer ñu ngi commencé seen feebar ñu ngi commencé améliorer tuuti. leneen lu mu wax ne moo di ne feebar bi képp ku koy weddi dangaa ñëwul fii. Omar Diaw ya, jërëjëf ndorteel njàng mi ñaari fan ci weeru juin bi ñu dëkkmal dal jëwriñ gu ñu dénk wàllu njàng meek njàng mi ngi def seen kéem kantan ngir nag daal taxawal ay condition yu baax ngi mën a gunge ndongo yi Mamadou Talla mi ngi doon def nag joñantil yu mujj ak inspecteur d'académie yi ci biir xew-xew bu nga xam ne dañ doon dalal lu toll ci juróomi téeméer ak juróom fukk ak benn junne masque yu nga xamante ne rek jëwriñ gu ñu dénk wàllu industrie ak PME moo leen ko baaxee Mamadou Talla wax nañ sax dañu amal ab euh, tukki ci réew mi yëpp ngir nag séddale masque yooyu nag ëllëg ci àjjuma yi dina ànd ak gel hydroalcoolique ak i thermoflash ak lu ni mel ñu déglu ko ci micro Badi Seck xam nga depuis bi comment euh, pandémie bi commencé donc ñu ngi si ay réunion chaque mardi dañu tenir benn réunion bu yaatu réunion boobu nag dañ koy commencé par li ñuy wax ne les inspecteurs d'académie suñu paree inspecteur d'académie yi ñu recevoir syndicats yi parents d'élèves ak société civile léegi nak paré nañu aussi bi moy suñu deuxième réunion pratiquement bu mardi déglu nañu inspecteur d'académie yépp. def nañu seen CRD yi autour des gouverneurs def nañu CDD yi indi na wax nañu liste matériel bi ñaata lañu soxla ci masque laata lañu soxla ci gel ñaata lañu soxla ci testeur flash donc yoy yépp donc paré nañ ko xam nañu et à partir de vendredi incha allah dinañu commencer jël suñu caravane dem diko déposer ci bir Sénégal donc nous wax une réunion en tout cas nous koy et même du point de vue pédagogique commencé nañu faire un emploi du temps pour nous réaménager année bi donc nous wax parents yi daal li que ci protocole sanitaire bi moom suis condition bu njëkk moom la njëkk respect suñ ko c'est ba pareil. avant le 26 après nous sommes soog dugg partie pédagogique pour le 2. gannaaw matuwaay yu dal jëriñ ñu nekk wàll dem beeg dikk bi jëloon ci dakkal dem beeg dikk bi ci diwaan yi am na yeneen matuwaay yu yees yoo nga xamante ni rek jëlaat nañu ko duñ def rek déglu si ki nga xam moo jiite transport terrestre Ousmane Doye xeex mbas mi dafa laaj tamit ay yite yu ñu jëloon ngir mën a dindi lépp lu nga xam ne mooy dajaloo bu amoon ci dem beeg dikk bi mbir yooyu nag ñaari weer a ngi nii ñu nekkoon ci waaye nag bu mbir di dox dañuy dox ànd ak moom maanaam fi ñu toll nii dañuy fexe ba nga xam ne lii di mbas mi ñu dund ak moom ba du mën a law fenn ci mbir yooyu nag ñi nga xam ni ñoo yor dem beeg dikk bi jël nañ ci ay coppite yu bees ngir gën a mën a jox comme ñi nga xam ni ñoo ci nekk ba tamit liñ leen diggal buñ ko toppee lii di mbas mi du law te niñ ko bëggee dina ko demee mu yitte yu bees yu ñu leen indil ngir gën leen jox yeneen i taxawaay ci wàllu xeex bi. buñ demee ba njiitu réew mi dogal yi nag nga xam ni demande transport day waat alors donc moo tax ñu dellusiwaat euh, joxaat. opérateur transport euh, transport yi ñu am possibilité yàpp auto bu mu fess waye mu yam rek ci place assise yi nga xamni mo moo ci carte grise bi loolooy benn ci biir euh, arrêté bobu di nga gis ni def nañ ci ben exception moy auto transport privé yi de personnes mo jëm lepp li walum location lepp li euh, auto touristique ak auto yi nga xamni ni auto transport public le de marchandises nga xamni ci bir arrêté bu njëkk ba du leen waxoon ci cabine yi nga xamné moy cabine gros porteur yi mo xam semi remorque yi ak camions yeeg yoyu même L200 yi nga xam ne dañuy def petite distribution yi ñu waxon li leen moitié bi ngeen di jël moitié nombre place bu nek ci cabine yoyu ngeen di jël loolu dogal boobu nak day continuer wéy ci kaw xeex mbas mi ba léegi ci biir euh, dem dikk bi fii ci Dakar ak ci réew mi daf ci am lu nga xam ni moo ci ëpp solo mooy ñiy dem ak dikk ci oto yi ñuy dugg ñi koy dawal ñoom ñëpp ku ci nekk am nga pàcc boo war a jël dal di ko gàccoo ci xeex bii di mbas mi. di ñaax acteurs yi euh, ci responsabilité parce que ubbi gii ñu ubbi tekkiwul ni nañu dellu ci nañu daan def. dafa tekki ni ku ci nekk ñu responsabiliser fu ñu toll ni lu gën a motiver ñu jël décision boobu lu ko gën a jëmmal lu ko lu ñu gën a jox sécurité mooy dogal bi nga xam ne ministre de l'Intérieur jël na ko pour ni port du masque mooy takk masque bi ci biir autotransport transport dafa obligatoire te ñëpp xam nañu port du masque outil bu am solo la bu bare doole ci ci xeex bi moo tax daanaka loolu rek am na dëkk yi nga xam ne sax loolu rek lañ jël comme comme mesure ci xeex bi te seen mbir daanaka gis nañu fu mu fu leen yóbbu kon loolu mesure bu ama am solo bu ñu yàlla dogalee ba ñu réussir loolu rek déjà c'est un pas donc li ñu daan am ci wàllu risque dina wàññeeku lool lool lool ci wàllum véhicule de transport urbain yooyu ñu mën a jàppandi rek ne fi ñu toll nii xeexu mbas bi dafa laaj ku ci nekk rek dugal ci loxoom ci dem beeg dikk bi nag coppite yu bees yi indiwul dara ci gën a ñaaxante ngir xeex bi ñu taxaw si ba mbas bi sori fi waaye tamit ku nekk ca fa nga nekk ci dem beeg dikk bi am nga ci pàcc boo war a bayal sa bopp ba ëllëg lii di mbas mi soriñu ba ëllëg li nga xam ne mooy dem beeg dikk bi du am benn rëq-rëq te ña ca nekk dund ci dundal ci tamit koom-koomu réew mi ba lépp nekk tawfeex ci biir réew mi. jërëjëf na Ndoye dox nañu séddali euh, ndimbal gi ci wàllub dund gi ci Linguère mais xew-xew bu nga xamante ne rek ñu ngi ko doon ci teewaay jawriñ gu ñu dénk wàllu développement communautaire di Mansour Faye lu toll si fukki junne ak juróom muy euh, njaboot yu teg euh, juróom-ñaar téeméer ak juróom ñoo ko naroo daloo ak Moussa Mané fii ci Linguère amal nañu li nga xamante ne mooy séddale lu jëm ci ndimbal bi nga xamante ne président de la république jox na ko askan wi ngir mën leen jàppale ci wàllu coronavirus. fii nag ci Linguère nag lu toll cinquante mille ménages ñoo xamante ne ñoo war a jot ci ndimbal bile. boo jëlee département de Linguère quinze mille sept cent soixante treize environ ménage la. jël commune u Linguère huit cent six ménage ñoo koy bénéficier mu nekk liggéey bu am solo. daanaka ménage bu nekk war na jot ñaari saaku ceeb yu cinquante kilos mu amaat tamit fukki kilos yu suukar. ak fukki kilo yu pat alimentaire amaat tamit lu tollu fukki litre diwlin ak benn paquet saabu. cant le ngeureum li tay dafa am kuko mom muy president Macky Sall ñu koy nuyu di ko ak te di ko diko di sant bu baax di ko parce que yef yi dafa metti boo ne jabot nga wara xey dem uti lo jox sa jabot mënoo genn lol metti na mom mu am xel pour lijjanti li jox ko nit ñi kon mënuñu lu dul contane ci di ko ñaanal yalla limu bëgg moko xam yalla ko ko defal. ñu rafet loolu bu baax ci sen tour di sant gouvernement république du Sénégal ci loolu mu jàppale population yi di waxit ne ah ñi ngi koy seedeel ne digle yi mu digle woon ci bi ñuy joxe mbir mi ci leer ak sellal ngir waral a def ci tànn bi ñu koy seedeel ne fii ci département Linguère commission yi taxawaloon def nañ lépp ci kaw ndigal li mu santaane woon ngir résultat bi ñu mën ko am nag daanaka am na ay effort yu bari def nañ ko ci wàllu mobilisation li nga xamante ne moo jëm ci ndimbal bi waaye nag leneen li nga xamante ne topp na ci mooy stabilisation registre national bu unique maanaam benn registre boo xamante ne fa la ñuy classé nit ñi ñi nga xamante ne war nañu mën a am ci ndimbal bi boobu registre nag ci atum 2013 ak 2014 lañ ko sos. moom lañ gënoon tiit doon gën a ragal mooy tànneef bi buñ ne nee un million de ménages ci Sénégal gi yëpp. ku ci nekk ñu jox la sa wàll chaque commune ñu jox la wàllam jox la sa pàcc ñi la lii mu ngi jógee ci lu ñu wax registre national unique registre boobu depuis 2013 lañ ko commencé doon defar ñu ni il faut ñu jagal ko ba mu jaar yoon ba mu leer nañ du am dublon du am ñu ci nekk noo xam ne kenn gisatu leen et cetera et cetera ministre bi tamit moom muy rafetlu taxawaay bi nga xamante ne commune yu nekk fii di Linguère taxaw nañ ko ngir mën a jàppale ki nga xamante ne mooy président de la république ci li mu bëgg Mansour Faye tamit di dellusiwaat di wax tamit ni li nga xamante ne président de la république def na ko loolu day tax ba mu gën a garantir li nga xamante ne mooy sécurité alimentaire. jërëjëf Moussa Mané mbokk yi leen leen indoon ci ay xibaar doo ko jottali ñu ngi leen gërëm si seen teewlu tuddee leen ñaane ba ci ko jaamu salaam.